jërëjëf Anna Thiaw gan gi amadu Gueye moo jiite uni Union national des indépendants du Sénégal ñu ngi lay nuyu. fay Madame Ngom. am nañu mbégte dalal la ci réew mi FM tey euh, tàmbalee waxtaan wi ak euh, manifestation yi amoon fan yi ñu génn ginnaaw bi ñu daanee Ousmane Sonko ñaari ati kaso si layo bi doxoon digganteem ak Adji Sarr euh, ban jàngat ngeen def ci xew-xew yooyu ak itam yan yoon ngeen jàpp ne bu nu ca awee réew mii dina amaat dal. waaw madame Ngom merci pour l'invitation euh, manifestation yi ñu am ci fan yi ñu génn nekk na li nga xam ne ñu ngi koy lu parce que xam ngeen ni en mars deux mille vingt et un lu mel loolu amoon na fi. Mm-hmm. ñu waroon ci jàngat waaye defuñu ko dellu si fii en mars en en juin de, de mai fin mais deux mille dundaat ko mu war a nekk nekk li nga xam ni ñun dañ ci war a dañ ci war a jóg ndaxte gis ngeen am na ci ay sénégal yu ci am ay gaañu gaañu am na ñu ci jot rey gis ngeen présence nervi yi nga xam ni tamit moom la ñu gën a ci manifestation yi mu nekk li nga xam ne koy ñaawlu bu baax a baax a baax ndaxte nag suñu police nationale warul ànd ak ay ni ñu mel noonu di yore ay armes pour attaquer pour rey di kii rek ci sénégalais loolu war nañ ci def ay enquêtes yu leer ba ñu xam lu tax ñu euh, rax ci ci policiers yooyu waaye lu weesu loolu man li may gën gis mooy nii lii bokk na ci li indi manifestation yooyu. mooy ni procès bi dañ ko def te Ousmane Sonko teewu ci euh, xam ngeen ni en 2 mars 2021 bi ñu ko wooyee tribunal euh, bëri na ci ñi nga xam ni dañu xeexoon ngir bañ ñu dugal ko prison. ba mu mun a nekk ba mu mun a ñëw taxawal boppam ci anam bi nga xam ne mun a défendre. waaw kon ñun jàpp nañ ni suñu eggee foofu tey dañ ko waroon may moom mu ñëw teew ci procès bi ndaxte nag loolu sax principe de justice la. Mm-hmm. soo buggee atte ñaari nit. ñi nga xam ni dafa am lu ñuy xëccoo wala lu ñuy jiñante il faut que ñaari nit ñi teew procès par contumace dañ koy def su nekkee dafa am vraiment nit bi nga xam ni mënul ñëw vraiment mu nekk ni dafa daw wala nekkul ci ci nekkul ci ci dëkk bi waaye Ousmane Sonko mu ngi ci dëkk bii hmm. am na ay avocat kon waroon na mun a ñëw teew ci procès bi ndaxte nag loolu. mais dafa tegoon ay conditions yu autorité bi gàntal notamment ministre de la justice. waaw loolu moo tax man jàpp naa ni état bi def na ndax hmm. ndaxte nag ñaara am euh, wala nit ki nga dem jëli ko forcer ko wala nga may sa bopp temps négocier ak moom te man jàpp naa ni. Hmm. mënoon nañ toog négocier ak ñoom amul woon dara dara dara lu jàmp. Hmm. comme xaar na ñaari at mënoon nañ xaar tamit juróomi fan wala fukki fan le temps ñu négocier ak Ousmane Sonko ak ay avocats ba mu ñëw ci condition yooyu nga xam ni ñoom loolu lañ bëggoon ñëw parce que nag man jàpp naa ni condition yooyu mënul nekk benn condition bi nga xam ni état mënu ko def mm-hmm. gaa Ousmane Sonko citoyen comme ñëpp mm-hmm. warul mun a teg ay yi nga xam ni euh, citoyen mënu ko laaj waaye dans son cas mm-hmm. euh, li am solo mooy procès bi ñu ñu ñu def ko en sa présence donc am na yenn condition yi nga xam ni waroon lañ ko ko mën a may def procès sans la présence de Ousmane Sonko en contumace loolu pour man bokk na ci erreur yu rëy yi nga xam ne ñoo indi situation bii moo tax dañu war a lu weesu ñu jàngat euh, manifestation yi dañu war a seet naka la ñuy profité ci période bii pour euh, defaraat mbir yi ndaxte nag li indi woon euh, manifestation yi mu ngi fii ba léegi mën na ñëwaat ci damay ne weer yi ñëw mm-hmm. waaye surtout ci élection deux mille vingt quatre yi ñu jëm suñ ci continuer nii dina nekk explosion bu gën a rëy bi nga xam ni dafay yàqal Sénégal lu bëri bëri bëri mm. xam ngeen ni euh, euh, condamnation par contumace suñ la ko defee mënoo def appel mm. maanaam suñ la tey jébbalee sa décision ne la yow daan na la ñaari at mënoo demaat tribunal pour jooytu pour ñu defaraat procès bi li mën a nekk mooy nga dem constitué wu wala état bi sax arrêté la waaye code pénal dafa ne suñ la arrêté dañuy defaraat procès donc ñun li ñu jàpp ne lii régler mbir mi mooy ñu defaraat procès bi ñu ñu reprendre ko te loolu sax mooy may Ousmane Sonko mu mun a lu weesu defandir défendre boppam waaye am ouvrir euh, may may boppam les li ñuy wax les voies de recours maanaam dina mën a dem appel dina dem cassation euh, balaa mbir mi di jeex mën na jël huit mois mën na jël vingt quatre mois te loolu sax mën na ko may fii ak élection yi mu participer tout a fait voilà donc mm. loolu c'est très important te euh, citoyen da nga war am droit teew sa procès pour défendre kooku c'est un principe de justice ba pare da nga da nga war a am droit d'appel contumace sax dafa nekk li nga xam ne ñu ngi koy commencé bàyyi ci dëkk yu bëri mm. Mm. waaw kon loolu comme weesagul comme weesagul tey ñun war nañ ci mën a jublu may Ousmane Sonko mu ñëw ak ay avocat mhm. parce que man soo ma ñëwee nit tey daan nañ ko waaye moom nekkul woon ci procès bi man verdict boobu pour man nekkul verdict bu dëgër. Mhm. te gis ngeen conséquences yi mu indi euh, nit ñi am nañu jàpp ñu ñu ñu topp Sonko waaye tamit nit ñi dañu am seen xel. Mhm. juge yi sax ñi nga xam dañ leen di ŋàññi man jàpp naa ni tam ñoom am xam nañ responsabilité bi ñu am bés bu ñu defaraatoon procès ak avocat yu xarañ yu mu am loolu mën na leen may ñu lay euh, seen dossier. Euh, ndaxte nag juges yi ay nit la ñu et puis ils ont une certaine éthique mm-hmm. doo ñëw rek ñu jiiñ la rek ñu la la ñu la daan mm-hmm. man dooma loolu je fais confiance à la justice je sais que dossier bu mel nii mm-hmm. dafa am politique bu ci rax am na wàll ndaxte Ousmane Sonko la am na wàll parce que nguur gi la mais loolu sax Ousmane Sonko di jiiñ nguur gi ne complot la ci procès boobu war na ko mun a fësal avocat mi war nañ mun a wane ni euh, euh, am na ay autorité yi nga xam ni dañu def li nga xam ni war ñu ko def te yooyu yëpp tamit juge bi nañ ciy tenir compte parce que soo ko leeralee ni dañu forcer yenn pièces yi si dossier wala duñ ko si dindi mais loolu mun na tax sax juge yi écarter yenn pièces yi. Mm-hmm. donc man dama jàpp ni tamit nous sommes en république képp ku mu munti nekk ngay nekk om politique ngay nekk om d'affaires su leen nit jiiñee da nga war a ñëw tribunal ndaxte loolu soo ko deful dafay indi lu ñu wooyee rupture d'égalité république ñu ñëpp a yem hmm. devant la loi donc moom tamit Ousmane Sonko si sama xalaat war na mën a ñëw dellu si tribunal ñu juger ko te ba yokk ci ne même su nekkee dafa am luñ ko daañ mais loolu tam société noonu lay doxee bëri na ay nit ñi nga xam ne tey ñu ngi prison wala teg nañ leen ñi nga xam ni ñoom defuñu ko waaye c'est parce que dañuy nangu ni société bi du doxee soo demee ba ñu teg la euh, un verdict même injuste da nga ko war a accepter parce que la société fonctionne comme ça voilà donc man je voudrais qu'on reparte vers euh, ñu àttewaat euh, mbir ñu très bien ñu àttewaat mbir mhm. voilà alors biñ ko àttee keroog ba noppi manifestation yi ci topp gis nañu ay toj euh, alalu jàmbur toj lu ñëpp bokk bien public yi mais aussi police ñu ne dafa def répression boo xam ni dafa ëpp ay bakkan yu bari rot ñu bari bari am si ay gaañu gaañu noo comprendre situation de chaos boobu Sénégal dugg waaw situation bu bu doy waar bi nga xam ne dëgg dëgg dëgg jaaxal na jaxal jaaxal na ñëpp waaye mais xam nga désordre moom désordre mooy li nga xam ni saa yu amee kenn xamul fu muy yem moo tax euh, anticiper bañ a dugg ci loolu. mooy mooy li gën. Mm. li nga xam ne nag jot nañ ko ràññee tudd naa ko sànq mooy ñooñu ñu wooyee nervi nga xam ni dañu rax ci policiers yi. nekk na li nga xam ni man dëgg dëgg dëgg maa ngi koy ñaawlu te maa ngi man tamit maa ngi gëstu maa ngi seet. lan moo mun a def ba nga xam ni ñu mel noonu jaxasoo si policiers yi est-ce que dafa nekk li nga xam ni ci benn euh, benn yoon rek la am wala ñaari yoon rek la am capté ko ci vidéo wala est-ce que dafa nekk li nga xam ni ci kaw la jóge parce que citoyen sénégalais bi nga xam ni doo policier doo gendarme waroo mun a ñëw ànd ak ñoom ba ñu lay jox pistolet parce que gis nañ fi ay vidéo yi nga xam ni Euh, policiers yi ñoo leen di jox ñoo leen jox ñoo leen ma jàpp ne ay policiers leen ba léegi na mën nañ def enquête gis ni ñoom duñu policier hmm. waaye loolu yëpp dañ ko war a leeral ndaxte nag loolu euh, njombe bu rëy la état dafa war a protéger citoyens yi def maintien de l'ordre mais en aucune manière warul utiliser ay civil di leen jox ay armes. waaw gannaaw xew-xew yooyu. Mhm. léegi nag waaw président sàkku na enquête ginnaaw xew-xew yooyu yëpp. est-ce que euh, am nga si yaakaar personnellement bu ñu xoolee li amoon mars ñu ubbi woon si ay enquête def ay commission te mujjul fenn est-ce que bii sañ nañoo am yaakaar wala ndax yaakaar nga enquête yi mujj. wax dëgg yàlla euh, awma ci yaakaar bu bëri lu am solo la nga xam ni sénégal yi ñoom ñoo war a fas yéene def ko moo xam nii président def ko wala fii ak deux mille vingt quatre suñu amee beneen président ñu def ko ndaxte lii yii ba ñu ba ñu ñu ko waruñu ko bàyyi mu mu noonu. waaye fi ma toog nii gisuma tey ci état autorité autorité wala responsabilité boobu nga xam ne dinañ ko def ci enquête yu mel nii wax nga ko sànq en mars deux mille vingt et amoon na fi te dara amu si dañu ubbi rek information judiciaire fa la yam depuis amul benn évolution te laataa lool sax fii gis ngeen ni Sénégal souvent policiers yi tamit ñuy jàkkaarloo ak étudiants yi wala mu am ay sénégalais yu ñu gardé ci commissariat yi su leen reyee enquête yu dem fenn à benn ñaar léeg-léeg waaye li ci ëpp daal enquête yi du dem loolu tamit bokk na ci li nga xam ni dañ ko war a dañ ko war a war a saytu bu baax parce que bakken lu fort la euh, ki nga xam ni moo la war a aar euh, nekkul ci moom la sa gaañu gaañu. wala sa dee war a war a bien voilà. ñu avancé wax ci dialogue politique bi acteurs yi tey la ñuy tàmbaliwaat euh, liggéey yi ndax UNIS wuy ji na ak itam lu ngeen di xaar ci woote bu bu bu bu ñu noppee ci waxtaan yi. waaw ñun dialogue boobu bokkuñu si d'abord. dialogue la bi nga xam ne ñun sax jàpp nañ ni beaucoup plus euh, li ñu wooye exercice de négociation la ndaxte dëgg-dëgg li ko indi mooy euh, am na si ñenn ci acteur politiques yi nga xam ne ñoom ñoo bëgg waxtaan parce que ku nekk am na loo séntu am ci président wala président am ci yow donc loolu nekkul dialogue national du sax dialogue politique inclusif kon ñun tamit du ñu nax suñu bopp beneen bi mooy euh, moment bi ñu def dialogue bi mooy moment boobu nga xam ne ñoo doon jugé loolu pour ñun tamit euh, feem la pexe woon bi nga xam ne dañ ko teg pour indi division isolé Ousmane Sonko ba nga xam ni peut-être suñ koy daan di ko teg euh, di ko teg verdict bi peut-être li ci ëpp na nekk ci ci dialogue politique donc ñun jàpp na ni dañu waroon séparer un peu ces ces deux événements la et éviter ay stratégie d'isolation mais li wóor ba wóor mooy euh, dialogue boobu ñi ko ñi ko ñi mu intéressé dëgg dëgg mooy président la République ak ñi nga xam ni amaana ñu ngi ci séntu Euh, peut-être euh, seen ñu defaraat seen seen candidature. Hmm. waa lu weesu loolu nag am na njariñ tamit ñu waxtaan ci fichier électoral bi waxtaan ci parrainage bi waxtaan ci lépp li nga xam ni mën na tax ñu am élection élection wu jàmm. Hmm. kon ñun bokkuñu si waaye tamit euh, xëppuñu suuf ci ci cere ji. Hmm. nañ leen bàyyi ñu doxal xaaruma ci lu bëre waaye tamit su nekkee mën na indi lu baax. dinañ ko dinañ ko rafet. yaakaaru itam ñu jaaree fa euh, daganal ñetteelu candidature bi boobu question tey euh, itam fës lool ci langue politique bi ñu bëri ragal ne euh, xëy na waxtaan wi bokk na ci li ko tax a jóg bu weesoo xëy na ñenn ñi mën a bokk ci élection yi mooy éligibilité wu yenn candidat yi est-ce que ragaloo ñetteelu candidature bi jaaree fii sotti. waaw amaana xalaat bi ak pexe bi mën na nekk ci ñenn ci ñoom waaye ci dëgg dëgg dëgg. gisuma te xalaatuma que mën nañ fa jaar ba ñëw indi bépp pexe buy dogal candidature Macky Sall hmm. loolu conseil constitutionnel moom euh, ma jàpp naa ni bés bu Macky Sall ñëwoon duñ ko duñ ko duñ duñ daganal euh, candidature am ndaxte ci ay dogalam leeral na ni ni président Macky Sall mënul mënul euh, mënul nekk candidat waaye tamit dafa am sax benn wax bu président Macky Sall génnee ci dialogue bi hmm. c'est vrai que ñi ñi nañ ko ci lu bëre ci ni mu ko waxee ah ñàkk na xaw na xaw a ñàkk jéggi tuuti ba mu ne ñu ñaan ko jekk pour mu dem waaye itam man dama jàpp ni wax boobu am na lu ci ubbi mooy ni moom pare na dem pare na dem amaana ni mu ko waxee moo rafetul hmm. waaye loolu tamit buñ ko xeeb euh, amaana jàpp na ni moom moom mii président Abdoulaye Wade ak la Madior Fall xam nañ ni mënuñu nekk candidat kon amaana ñu ngi seet condition yi nga xam ni ñoom noonu la ñu mën a wala waree demee ci wàll boobu man bokk naa ci ñi nga xam ni dama jàpp ni président de la république war nañ ko mun a téye comme xalif général war nañ ko mun a comme papa ba nga xam ni su defoon ay erreur yenn foti sax war nañ ko mun a euh, sàng sutura ba mu dem ci jàmm ndaxte nag loolu mooy jàmm Sénégal. Mm-hmm. man cette petite brèche là waruñu ko xeeb. Euh, moom Macky Sall mu bañ a mu bañ a présenté wu dem euh, Ousmane Sonko dem muy tribunal suñ koy setal ñu setal ko wala mu am voie de recours ñaari pexe yooyu man bokk na si li nga xam ne loolu lañ ko dox woo ci sénégalais yi ndaxte ñaar yooyu su matee rek dinañ am sénégalu jàmm ndaxte nag su nekkee waa Pastef ak Ousmane Sonko dañu toog ne dañuy participer ci élection yi par force loolu mooy may Macky Sall porox ndool bi nga xam ne dafay teg dafay toog def report élection yi hmm. kon violence bi manifestation yi résistance ak yooyu yëpp nga xam ne dafay yëngal dëkk bi na nit ñi xam ni loolu intérêt Macky Sall la ba nga xam ne suñ fa eggee ci élection yi suñu réglé wul cas yi comme ni ma ko waxee Macky Sall dina am pexe pour toog te du jaar conseil constitutionnel. Hmm. donc il faut prévenir maintenant il faut prévenir maintenant trouver les deux voies pour avoir une résolution pacifique benn bi mooy Macky Sall ñu seet naka la ñuy def pour mu dem ci jàmm kenn du ko topp ci dara ma wax ko waxaat ko kenn du ko topp ci dara nekk na président de la république na dem Sénégal nekk ci jàmm Ousmane sonk ñu attewaat ko atte bu jaar yoon su waree bokk ci élection yi mu bokk ci élection yi Sénégal des ci jàmm. mais partisan au président Macky saa yi gis nañ ñoom ñëpp ba ci premier ministre ñu porte même euh, combat au troisième mandat bi ne ko mu neex la mun a xari la da ngay bokk euh, ban taxawaay peut-être tey la conseil constitutionnel war a am parce que moom rek xëy na moo ñu mën a génne ci situation bi est-ce que gis nga foofu solution pour ñu génn ci ci ci coobal ñetteelu candidat non conseil constitutionnel moom li mu wax dafa leer te ma bamtuwaat gis nga dafa am benn benn benn maanaam benn caabi benn principe benn loi benn principe de droit bi nga xam ni moom le conseil constitutionnel di doxee te mu leeral ñu ko ne noonu lay àtte hmm. yéen a ngi fàttaliku en deux mille douze bi ñuy laajte ndax Abdoulaye Wade mën na am troisième mandat conseil constitutionnel dafa am le principe mais un principe un principe est applicable euh, un principe est applicable situation un droit est applicable à une situation si il est connu au moment de la naissance de cette situation c'est-à-dire Abdoulaye Wade bi koy far deux mille deux mille amul woon limitation des mandats moo tax loolu tegul woon limitation boobu tegul woon ci kawam biñ ko biñ koy jugé ñuy bi ñuy jugé candidature en deux mille euh, en deux mille douze. Mm. Macky Sall bi ñëwee bugg wàññi mandat en deux mille seize conseil constitutionnel dafa ne réduction mandat bi bi Macky Sall di yëg bokkul woon ci constitution kon kenn mënu ko teg ci kawam kon li conseil constitutionnel dafa ne su nekkee droit bi ñuy limitation de mandat mu ngi fi woon en deux mille douze bi Macky di yéeg kon loolu forcément dafay appliqué wu ci kaw ma ma ne la sànq Macky Sall loolu moom xam na ko bu baax Ismaïla Madior Fall xam na ko bu baax li gars yi nag di wax man jàpp naa ni ñoom ñooy loxo c'est normal ñooy auxiliaire Macky mm. mais Macky Sall ci boppam bës buñ ko tegalee ay conditions bi nga xam ni mën na dem ci jàmm te nag loolu la ñu wax suñu raxasee wax bi mu wax su ñu raxasee wax bi mu wax loolu la wax su ngeen ma tegee ci yoon ma dem ci yoon man moo tax dama ne nañu seet naka la ñuy waxtaanee suñu biir luy donner les conditions d'un départ digne de son rang et que Sénégal toog ci jàmm mm-hmm. du Amadou Ba du waa APR du waa coalition benn bokk yaakaar ñooy forcer Macky Sall su boppam su demee ba xam ni il peut partir de manière digne mm-hmm. de manière protégée et man je pense qu'il le mérite bu boobaa il va partir et tous les autres ndaxte nag ñoom sax dañu bëgg nekk candidat. Mm. dañ ko waxul rek. Mm-hmm. waaye Macky dem moo leen gënal ko ñu nekk candidat kon bës bu Macky de ne euh, gas yi dem na di nga gis ne di nga am cinq six. yu jege benn bokk yaakaar kon man résistance bi xaaruma ko foofu. Mm. c'est Macky qu'il faut rassurer. Mm. parce que c'est le président de la République. te moom tamit euh, kilifa la. dañ ko war a jox akam. ndaxte nag yore na Sénégal douze ans. waruñu ko mën a topp ci dara. Euh, et lui et sa famille et le Sénégal continuer en d'accord jërëjëf ñu ngi lay gërëm bu baax a baax euh, Amadou Gueye euh, njiital euh, UNIS amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM tey merci merci